moo tax tey tubaarkàlla plateau bi nit dolli ci laa laj mhm. sëriñ Abdourahmane la tudd waaye dafa am maanaam dafa am fu mu jaar ak sëñ Abdoul Khadr soxna Tilaala Mbakke soxna Tilaala mhm. mu ne ko nañ ci dolli Tilaala ji ndax waa suuf xam ni sama doom nga waaye waa fee xam ni sama doom nga waa kaw loolu di ba Tilaala ji waaw bismillah macha allah mu ngi doon kontaan nañu euh, nene dañuy dellu ci papa waxtaan wi rek ah mën a yeggali waxtaan wi rek delluwaat ci papa tabarakallahu ay ca bismillah euh, moom it jërëjëf nee na ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul kañ la maam Cheikh wàcc liggéey fu mu wàcc liggéey ak euh, ndono yi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu door a ñëw nag ci njàngaleem. waaw jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di sant mbokk yu baax yi ci seen zikkar bi nga xam ni euh, li ngeen di def a gën lépp muy tudd baatu laa ilaha illallah. Mhm. nee naa ko layal nag ndax sëñ Touba noon la ko bindee. waa demee ci téere sëñ Touba bu ñuy wax Masaalikul Jinaan fii jam'i ma farraquhu daymaan ci tasawuf la ko bind. téere bu bàyyiwul dara. sëñ Touba moo ca wax ca ca buntu zikr. boo ca duggee mu ne ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli maa kaana yuksiru xat qultu zalika bila israari wala ubaali bi zawil inkaari fa kullu man saalani fa lii jawaab xabla wala tujaadiloo ahlal kitaab noonu la ko sëñ Tuubaa waxe dani lu taalib yëpp murit di mën a jàpp baax na ci xeeti jaamu yàlla yëpp lu ci taalib bi jël rek nee na baax na bari na yool jàpp baatu laa ilaha illallah borom bi la sàkk di ko wéetal sañ Tuubaa nee na moo gën a màgg lu taalibe di jàpp daal ni nag xat qultu zalika wax naa lii bila israar yi te nëbbatuuma ci li ma wax wala ubaali faalewuma bi zawil inkaari ku may weddi moo tax réew mi ku ci wax te tey bàyyi xel ko lay weddi du too wax dara ndegam ñi raw ñépp ñooy wax faale ñu ko leen weddi ci liñ gëm nit da ngay am principe gëm la nga gëm di ko wax yàlla mi moom jaam ñi sax dani fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ca sootul kahf ku mu neex gëmal la wax ku mu neex weddil weddi nanu yàlla <laughs> weddi nanu yanant bi weddi nanu sëñ Tuubaa weddi nanu ko baax ku ne moo tax sëñ Tuubaa ni kon faalewuma lii may wax ku ci weddi waaye lu taalibi mën a jàpp tudd laa ilaha illallah borom bi ko sàkk moo gën ci moom daani li ma wax yàlla loolu la wax ndax bi muy wax ci julli dani inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar daal ne waaye wala dikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasnaun te suratul ankabut waaw loolu de moom maa fi nekk maa lay garan yàlla moo ne julli taqoo ak moom na ngeen ci farlu ndax day dindi ci yéen ay ñaawteef ak yunu nu sib waaye nag zikrullaay fàttaliku yàlla foo toll di ko tudd moo gën a màgg lii tax sëñ Tuubaa ne kon ku bëgg a weddi lii demal ci alxuraan wala tujaadilu ahlal kitaab laata nga koy jot yaa ngi yem ci aayu bii ma jàngalee ci an kabóot avant ngay jël walaatu jaadiru ahlal kitaab di nga fekk li ma wax loolu la yàlla wax waaye maam Cheikh Ibrahima Fall wax naa la léegi nii la ci ñaar fukki atam ak juróom-ñaar ci la ñëwee ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk ak sëriñ bi ba keroog bi sëriñ bi wàcc liggéey 1927 xanaa xamoo Cheikh Ibrahima ak sëriñ Touba ñoo bokk at yu ñu dund juróom-ñaar fukki at ak ñeent wala juróom moom la ñu dund ñoom ñaar. ni yenant bi abu bakar Saddiq bokkee at li yenant bi mage Aboubacar la sëriñ tuuba mage Cheikh Ibra dégg nga wax ku ne xam na Seydina Aboubacar ni mu jeexe tàkk ci Moustapha gëm gi mu ko gëm mësta xel yaar ci lu mu ko wax ku ne xam na maam Cheikh Rafal ni mu gëmee sëñ Touba mësta xel ci lu mu ñoo bokk itam ak dund ndax bu ko sëñ bi magee ñetti at njëkk koo génn àdduna ñetti at seen dund day yemoo kon loolu mooy diir bi ñu ànd ñoom ñaar mhm. waaye bëggoon naa tuuti sëñ Abdoulaye Lam ñu xam ni Cheikh Ibra hmm. du ñun ñi xamul dara ñoo ciy wax ñi xam dara ñoo ko nangul ni mu mel ñi xam dara ñi xam dara dëgg la konkal yi xam dara sëriñ Mouhamadou Lamine daw si ko gën a yéeme amul dafa wax ni man daal fa sëriñ ci Tuubaa làq Cheikh Ibra moom xawma fu mu doon mbiram waaye xam naa ni moom du nekk mukk ci caaxaan kama xam lu mu nekk wér na fañ ko làq nag damaa jotewul foofu pour xam ko waaye xam naan moom du nekk ci caaxaan maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Ahmadou Fa Jama Ñang dani kudul Ibra Fall mboole mbindee fi ñuy coow kudul Ibra Fall fekkoo ma ci def ak dindi kudul Ibra Fall li ma nuróole ak yow mooy bopp ak kawarita ak kawar ak i we waaye kudul moom fekkoo ma ci def ak dindi. maam mi maam Ndaam Ñang pour wax la kon fi maam Cheikh Ibra nekk. waaye sëñ Mawlaayu Bousso sëñ Mbàkke Bousso ko jur xam ngeen ni sëñ Mawlaayu Bousso 1894 la gane àdduna 1983 ci la génn àdduna ñiy wax daane màggal gi ñu ci bari ci moom mooy seen dellukaay bi gën a kawe ci li mu dund ak sëriñ bi ci gàtt bi mu ko joxoon mu dem wecci kooko mu nekkoon aw bëy mu ne ko demal ci muraay ci séeréer yi ñu weccil la ko xarum xaaf nga indil ma ko wax ko li mu koy wax ci màggal bëy woowu ku ñuy wax soxna ummi si di soxna ci sëñ Modou Bousso taawu sëñ Mbàkke Bousso moo ko joxe woon sëñ Mawlaaye Bousso la ko sëñ bi dénkoon ba fukki fan ak juróom-ñett jot mu wax ne ko séddale ñetti saami ndawal woo soxnay barzaq yi ñoom soxna Aminata Kanni Bousso ak soxna Anta Bale Bousso ñu séddale ko ay saam bii dem ci njaboot gi bii dem ci fere yi bii ñu saraxe ko muy li jëm ci màggal gi sëñ Mawlaaye Bousso dafa martial maam Cheikh Ibra Fall bi mu wàccee liggéey 1930 baayam sëñ Mbàkke bu so ni ko na nga woy ci jàmbaar ji nga xam ni modèle la mu bind wax ni wallal kiraamu wa waalil husnu yaa asafaa ala xalilin samiyallaahi ala samiyin xalilallaahi man sharufa xad baaya a cheikh xidman fatinan yabgi ridaahu wa anhu yaxmilul kulafa ay bind laa wax de dañ ma laay bu sa neena yu baax ña dem nanu walal kiraamu wa waalil husnu li fi des njàqare képp ngir kan maam Cheikh Rafaal mi dem ala xali ala sami yin ci ki ñu tudde woon xalilallaay xaritu yàlla bi Cheikh Ibra man sarufa ki nga xam ni teddoon na léppam tedd ta kawe kuy kooku mu ni xat bàyyi a moo jaayante ak Serigne Touba xat bàyyi a moo jaayante ak Serigne Touba man ci jiitu kon ñi nekk ci àdduna bi xamuñu fi mu jaayanteeg sëñ Touba li ñu xam mooy mbàkk fële ca Mbàkke Kajoor waaye sëñ Moolaay bu so nee na man ca jiitu la jaayanteeg sëñ Touba xidman waaw xaadiman di ko liggéeyal fatinan di ko yeewu maam Cheikh Rafal ku muus la woon intelligent ko yeewu te li la koy wan mooy fu sëriñ Touba dëkke woon rek maam Cheikh Rafal defaral na ko fa kër capital yi la daan daag capital yi tabax fa kër yu mag ni bu fa sëñ Touba wàccee am fu mu fanaan muy këru boppam diggante ndarak ak Jurbel ak Dakar ak Cees ak Bambey ak Xombal ak fu nekk amoon na fay kër yi boppam suuf si la daan jënd parce que dafa rawoon jamonoom ci visionnaire la woon tubaab yi boo demee ci archive ñoo ni milliardaire la woon moom maam Cheikh Rafal fin lettre la mooy ku muus xam bind ak jàng lay wan ni ku bari xam-xam la daal bind téere arab bindul olof arab la moom Cheikh Ibra waaw la ko tuddee liy ñoot di taalibe bi di ko yóbbu ci mu bëgg sëriñam jaar ci moom àgg ci leeru yanant bi àgg ci ngërëmu yàlla noonu la tuddee xasida gi jazbul murid ca biir daf ca wax wax ju xóot da cay firi basmala bismillahi rahmaani rahim day jël baa gi leeral la ko bala ngaa jàll ci seen gi waxuma la maam Cheikh Ibra waaye ay taalibeem kenn du ñoom am na taalibeem bu ñuy wax seex Makhtar Lo bu masaa di toog ci jataay day ngemb dégg nga li ma la wax day ngemb ndax na damaa bëgg ku ñëw dëkk maam Cheikh Rafal man ngay njëkk a bëril ma daan la bala nga àgg ci ma eh da daan ngemb daa toog waaw maam Cheikh Rafal ni ko ah, doom lu tax ngay ngemb mu ne ko ku la dëkk faal ma duma ko daan ko bala mu àgg ci yow góoru yàlla lu mu rëy rëy bu la dëkkee maa koy daan da daan ngemb Cheikh Matar Lo nee na damaa ngembul Cheikh Ibra ku ñëw ma waxtaan ak yow ci baa bala nga àgg ci siin gi ma dëkk la ci baag yi suñ toogee fii ak suba te waxuma la ci baag yi digganteem ak siin gi lu la ci ump loo xamul woon ma xàcc ci seex Ibra te taalibe Cheikh Ibra Fall la woon sëñ Ablaye Yaqin Diop taalibeem la woon. moom Cees moom Cees. dëgg la bàyyi soxna say bàyyi dara. dëgg la ñu koy ziar. Ardul Ijaas la bàyyi ko Makka naar la woon. baayam tudd Muhammad baayam tudd Abdoulaye mu tudd moom Muhammad ndaayam tudd Aminata. mu jàng ba jeexal téere yi am wilaaya ju rëy xees pecc bàyyi ko màkk dafa mujj lakk ndax ne ci naaj bi di liggéey rek ak a jaamu yàlla ba mu ñëwee ba dem fu ñuy wax ñaxib foofee la gisanteeg maam Cheikh Ibra Fall fekk na Cheikh Saad bu moo ni ko woon sa sëriñ yanantu yàlla Ibrahima dina dellu si mooy nekk sa sëriñ mu xamoon ni kon ki koy yilif Ibrahima lay tudd keroog bi mu dajeeg maam Cheikh Rafal Cheikh Ibra tudd na ko ñaar fukki pays suñu borom ak ñett fu mu ko tudd mu ni ko xam naa ko Cheikh Rafal ree ni ko doom doo xale de ba ñu àgg ci ñaar fukki pays ak juróom mu ni ko xawma foofa Cheikh Rafal ni ko foofa kenn mësu faa xànd ku dul mag sëñ Bamba eh danga may liggéeyal ma yóbbu la foofa mbay waaw dama danga may liggéeyal ma yóbbu la foofa <laughs> mu ko daan rootal ay xandi moom sëñ Ablaye Yaqin Diop keroog ba mu njëkkee am leer doom ñu dem yëgal ko maam Cheikh Rafal ni ko sa jàmbaar ji moo am gone maam Cheikh Rafal daa sóonu woon dañuy dégg toog ni bisimilah jàmm nekk malaaka dina am doom Abdoulaye Yaqin am na doom. kookoo ngi Cees ci jàmbaaram yi la bokk. sëñ Yaaram Mbay. waaw sëñ Yaaram Mbay. kay ci jàmbaaram yi la bokk bari na lu ngeen di dégg sëñ Yaaram Mbay la ko waxal. waaw kay mu jege woon ko lool bàyyi sëñ Cheikh Mbay jàmbaari Cheikh Rafal la woon daana wax ni péncum sunu boroom ku dul Cheikh Rafal matuma ci sëriñ te Cheikh Rafal la ko sa Cheikh Rafal la ko dimbali sëñ Yaaram Mbay waaye Serigne Mor Ndiaye tomb deel ci jàmbaaram yi la bokk moom amul sax leer amul doom sëñ Malick Ndiaye la ko def naa la ngay sama doomu baatin junniy maraaxib la daan añee kooku dem na bu mel ni junniy malaaka la yor taalibi Cheikh Rafal la bi mu waree ci liggéey dani talaatay ginnaaw suba ndax rafet na ñu ne ko waaw mu ne na ngeen ma waajal ma dem fekke sama baay seex Rafal ci laay wàcc liggéey ñu mën a toog ni bis sàngam ci laay wàcc liggéey dem fekki sama baay Cheikh Rafal sëñ Malick Ndiaye hmm. dégg nga wax bi ci taalibe Cheikh Ibra la bokkoon. daa yéene. Serigne Massamba Ndiaye wàqi maam Cheikh Ibra Fall daa toog kees liggéeyu njaareem bi jumaay njaareem sëñ Touba nga ko santoon maam Cheikh Issa Diène borom Diène ak Lagane te maam boppam nag wu si masa daanu wala bëy wala xar wala rek maam Cheikh Ibra la koy jox dañ ko jëfandikoo den Cheikh Ibra rek. ko def miraaran ba bis ñu andi ko ci kër maam Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima de xanaa Cheikh Issa moo yónnee ti ndawam ñu ne ko waawoo Fall mu ne aka gore aka baax aka maa sama rakk jooju nañ ma andil bindukaay ma defal ko tey sama ngërëmu bopp ñu dem andi bindukaay encrier bi tegal ko maam Cheikh Rafal muy bëgg a bind kenn ci soxnay maam Cheikh Rafal raam ni ko Fall bala ngay bind ma seere ci jëmm jooju maam Cheikh Rafal ni ko bisimilah mu ne ko ñun ñii di liggéey sa kër nu ngi seere ni kër sëñ tuubaa bu dee kursu bu ñu fexee kenn du Cheikh Issa Diène njir jëfam ci yow maam si Ibra Fall ni jaratul may bind nee ko garantil naa ko loolu kooku mbër la